topp gis ngeen tey xam ngeen ni naanaan a xewle moo tax naanaan yépp danoo sajj tey ñëw ab saa ngi wàcc séeri Aseynu Ñas xale bi am talent bi xale bi si marché Ocass xale bi nga xam ne lu mu kubul baaxul xale bi nga xam ne macha allah kub rek lay def. kenn du Assou Niass ndaanaan li Ousmane borom sànd gaa ngi noonu waa Seydou nu lu mu nii ba mu bari doole kon na damay ànd ak ci xew bi wan leen li fi xew incha allah. car macha allah Ousseynou bu xewee xale yu baax yi xale yu man dara yi dañuy sàjj def ba baax pour ñëw. di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax ki ne comme ni nga ko waxee rek Ousseynou moom bu xewlee damay ñëw ndax man ak moom démb lan tey doog a ñëw sa bisam bi tamit moom la ko ñëpp doon ñaanal. soxna moom man loolu xam naa ko macha allah sañ sa nga def nga ba mu baax. waaw gis nga. yow da li ku ñàkk ki ñaan na ko man. non kenn yow yow yaa rek. yal la yàlla fal. waa kii ne li nga wax dëgg la Ousseynou man ak moom man ak moom démb lañ xamante woon tey soogay ñëw mu nekk sama mag jàppale ma fu nekk nag defal ma lu nekk kon xewam wi bu xewlee man maa fi war a jiitu ndax defal na ma lu nekk macha allah jàppale ma ko. yow da ngaa gore rek maam say ndax nit a ngi fiy defal doomu aadama lu nekk après mu fàtte ko waaye yow kenn du yow. Ousseynou tamit kenn du moom kenn gënu koo xam nga ni man kontaan naa si yow. Mm. merci merci. mooy aaw buuru këram aaw bi nga xam ne daa fàkk ba xale yi ñëw aaw bi nga xam ne namul dara aaw bi nga xam ne la woon boole yow xale bu ñàkk ki ñaan baa ngi nii ko dégg xam ko muy Astou Ndour tey noo dundee bis bi. tubaarikàlla macha allah ki ne maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokk yi nga xamante ne ñoo ngi lay bàyyi xel bu baax a baax am mbégte contentement rek tey kenn ku ne xam na ne sama càmmiñ moo xewle ah, muy ñas 95 Ousseynou Niass Seri Absa sama càmmiñul bopp sama féete maa ngi kontaan bu baax a baax ah, yow xam nga ne sax tey mënu ma wax billaay ndax sama xol moo sedd maa ngi leen di ñëpp di kontaan macha allah. gis gis nga asu li def macha allah bu am talent xale nga xale bi nga xam ne mooy moo fàq ba ñu daanaan lii jóge ba Touba ñëw lan moo waral teewaay si bis bi waaye bis asu jërul laaj lu war bu baax xale bu riis xale bi nga xam ne ñawul baax waaw dafa fekk ne Astou Diouf dafa baax macha allah bu bëgg ay nit waa fi ñëwoon moom ñëwoo ci dara waaw li mu bëgg sëyam bi yàlla na ko yàlla dafa di barke Serigne Saliou moo tax nga daal def nga ba mbali doon. ak waral lii. xale bi xew Ousseynou bi Ousseynou suñu jëkkër la suñu rakk la suñu xarit la suñu lépp la maanaam daal boo xool suñu complice la sax. barke Serigne Touba baax tabe mi ngi noonu mooy Ousseynou. waaye yéen kenn a yoo xam ne da ngeen a na sax da ngeen leen di uufaale yéen kenn du bi yàlla na baax ci ma daan naa la wax bu lëndam la ku daanu kaw lay féete. loolu am na salaam. tey nee naa la Mbacke dafa am gan. waaw Ousseynou Ndiaye tey dafa wàcc Mbacke def ko doom. waaw Ousseynou Ndiaye tey bi mu wàccee Mbacke waa Mbacke xam na ni xale bi ñëw am na riis na xam na boppam am na maana waaye jàmbaari Serigne Matar moom Serigne Modou Moussa Dieng moom soxna Awa Gadiaga tey Mbacke diggante Touba Mbacke kenn de su. waaw xam nga ni nee la. soxna Kiné yow tubaarikàlla macha allah loo nee loo jàpp gën loo jàppul mm-hmm. waaye nag site bi mooy site bi nga xamante ni si na ko àdduna sëpp bàyyi xel site bi nga xamante ni si lu lëndëm da koy leeral tubaarikàlla macha allah lu nëbb mu teg ci loxoom loolu jug taxaw waaw ñu fekk fi Sadda mu nekk ndaanaan lu mag nag nekk ki nga xam ni géwél bu ñàkk ki ñaan la géwél bu riis la géwél bu bëgg boppam muy alaaji Sada Niang siyaare baax ki ne di la ñaanal yàlla defal la jàmm di am contentement bu baax tey nag ñu teew fi ndax Ousseynou Niass day sunu xarit kii bu bolo ke fii kii dugg baax tey bakkan na ko lool waaw suñu teewaay fii moom yaakaar naa jorul nga ñu koy laaj quoi ndax yow moom xam nga xam nga ko xamul yaay xam nga sama diggante ak waaw ndax Ousseynou day sa xarit nag dama lay fekk place am ñaar ngeen ni wecconte te xam ngeen ni mënoon ni liggéey bi leen boole ay xolu soxorante nekk si waaye yéen ñaar da ngeen a mel ni comme ay famille moo yow ak ji ñëpp dëgg la dëgg que si moom parce que su ñëwoon xam nga ñoo bokk benn demee noonu mais moom moo nekk borom baax quoi nekk ku nekk Baye Fall. Euh, nga ne ku ñàkk ki ñaan rek moo ko parce que parce que moom moom mënoon euh, xam man kontaan naa yow torop def na macha allah buy dagg lu rafet ngay ñaw xam ni mooy loolu daal xale bu ñàkk ki ñaan ba xale bi nga xam ni ku am stress sax bu la gisee du am stress. waaw kenn ne ginnaaw bu ma nuyoo. dina la sant bu baax yow kenn nga ci Ousseynou daanaka programme bi moo xam mais mënu maa wax sax sama mbaax dafa doon koo xam ne kenn la ci man te yàlla xam na ne bu may wax si moom sax sama xol day tooy mais lu baax li mu am lii dara a ko xewam nu mën a mel rek xeem naa ko ba tax ne lii wallaahi asin wax tax xam nga tey xol bu xol xam naa yëg-yëg ngay waxee xam ma teg moom ndax xam nga Ousseynou nam la def ku nekk nam la def nam la defa tax moo tax xam nga ne borom bis baa ngi li si ab sa séeréer léegi ñu ngi si naanaan bi ba léegi ñu ngi si gar mi ba léegi. yow kii li ma sàggee si digg dëkk bi xaadim saw saw ki nga xam ni kum jaayu tiise boo xewul. waaw wax ci moom xaadim saw mi dimbali man doo def noonu danga may def naan. waaw ñooñu internet la day dem. jéeri kum jaayul tiisa la sol baaxul barke Serigne Saliou xala gar mi noonu xala gar mi noonu kum jaayul tiisa la sol baaxul ñas nii la war a mën a mel xale bu gën bi ñas kumba Abdallah man dama jaaxle li ma sol nit ñaa ngi ma ku ko ku xaadim saw am saw léegi

Yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş.

baax nag fii bu fi ñëwee dañ fee war a ñëw ndax suñ doom lay moo xewle bu xewlee day mel ne ñu ñëpp ñoo xewle vraiment kon nag suñu teewaay dafa dañoo def suñu devoir rek teew dëgg yàlla xam nga yow xaadim naaraan nga dangay def te bëggoo kenn xam lii laa ko bëgg a bëgg a def comme diggante Mbàkke ak Touba waa gis nga sama sama day moo ko waral rek lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole lu yëngu lu la ko yëngal moo ko ëpp doole Xaadim yow li ma sàjjal moo fi des. waaw gis nga def lii Baye Sall tailleur bu ñaawul bi sa doomu nday ki nga xam ni yaa ko roof doole ki nga xam ni loo xew la nga ni Baye Sall kuy ñëw nga ni Baye Sall Xaadim Sow yàlla na sa jaamu yaa yow amin amin amin sama xarit bi kenn de yow. Ousseynou ma fi indi moo nekk sama jàmmiñ baax si man nekk sama xarit nekk sama lépp vraiment. moom maa soo spécial rek. yaa ngi tàq ba yàq macha allah merci beaucoup ah waaye lii nga def waaye nag ndaanaan a xewle bu ndaanaan xewle il faut que ndaanaan yi génn moo tax sàjj nga muy essay nu ñes muy soxnaam si ah, dëgg neexu wax dëgg yàlla moom soxnaam see mu fen nit ku baax vraiment ñu yàgg ma nag moom trop musuma xam ci moom dara lu ñaaw vraiment xam nga ni instant bi moom jot amatut kon nit ku la yëkkati rek xam nga ne ko la. ñu wax xew bi neex na macha allah ko ñaan nag laf cat neex na torop moo tax def nga ba mu baax njaay jaata njaay yow ki ney sa mag gàdday sa baay boo defee da ngaa war a def boo defee yow da ngay naanaan macha allah. waaye gis nga rek jàppale Ousseynou. dama jàkkaarloog garmi xale bu bi fii ñoom ñëpp ay tailleur lañu. yaa ko tigre moom dama si kontaan parce que ki xewle sama doom nday la Ndiaye Couture yaakaar naa ko waxamu dégg nga ko di sama doom nday ma dikk ci xew ñas 95 bi bis bi daal kon naan nañ ci torop moo tax maa li nga def xew non xew bu ma ko xew

ki nga xam ne dama amul iPhone mu woo ba ma ñëw roof ma doole may ma iPhone kii kenn du moom Fall Awa Bousso Fall Awa Bousso tey bu ndaanaan xew ndaanaan rek a fi mën a mën moo tax nga def sa ndaanaan dagg sa itte na jug loola yomb kilifa nga diggante Touba ak Mbacké wallaay waa kii ne sax na kenn ni nga ko waxee dëgg la ndax tey bu ñëwee ci bis mel nii Ousseynou moo xew la Ousseynou boo gisee gisuñu ñëpp wax dëgg yàlla mu nekk suñu xarit bu baax suñu moom wax dëgg yàlla kontaan baax ci ñëw jàppoo ko Fallou. noo mu ko yow laay jàppale. barke Serigne man kontaan naa si ki nga xam ni Fallou mënu ma wax moom mooy wax si moom sama xol day féex daal. xale bi nga xam ne kuy liggéey mu roof la doole. barke Serigne Saliou. waaw ndax loolu moo ñu war ndax ñun bu nekkee ay xale nekk Touba di góorgóorlu te it euh, di sant yàlla Touba gi nekk Touba di ci góorgóorlu ndax fii moom ku mën dara ku ne dañ laa jàppale te boo demee ba suñu borom may la tuuti lu mu bon bon nga xam ne yaayante war nga mën a jàppale. maa xam ngeen ni ku bëgg iPhone bu baax bu riis gën di nga ñëw si Fallou la mu yor moom kenn du moom da koy voyage si ñëw indi ko moo aay nag bu yàqoo pour nga defaru ko fàlloo aay borom mbir maa ngi noonu koo koy fàllaawo bu sa kii faj aajo yi kenn du moom ñas ñëpp xam ko si ñas 95 xale naanaan ba xale bi nga xam ne li muy li muy def àddina bépp kenn weranteetu ko xam nga ne Ousseynou bisu ndaanaan nii la wax gis nga de moom ñun ñëpp ñoo ko gisandoo wax dëgg yàlla ngi ci xam nga nga woote ñu seenu mbaax rek moo tax ñu fekk sama fii te xam nga jóge dëkk ak dëkk waa Ousseynou xam nga ni lii yombul man nga luye seize man nga luye baas waaye doomu aadama kenn mënu koo luye Ousseynou lii dina la yokk jom dina la yokk encourage ba lépp loo doon def si lu baax danga koy yokk ndax xewle gis naanaan yi gis ñëpp dafa neex te macha allah Ousseynou Niass danga da ngaa baax ñàkk ki ñaan. waaw ki ne lii moom sax la ci man quoi ndax nit ñi ñoo ngi ci wax rek man nga luye ses mais nit yi kenn mënu leen luye dama dama dama dama nekk ci bërëb di liggéey. bëri nit yu ma ciy jàppale samay xarit dañuy déplacé wu fu ne di ñëw di ma fekk si ci sama liggéey tey bu mu amee courage su def lii rek ñoom la ndax am na lu ma doon woote wala ma koy xëcc bu ma ci nit ñi fekk si lu demee nii kon nag man lépp dama koy delloowaat nit ñi rek ci confiance bi ñu ma jox ci euh, bëgg gi ñu ma bëgg te man xaw ma sax lu bëggeel gi du ma ne lii la quoi. du ma ne nii laa mel bañ bëgg ma mais nag sant yàlla baax na sant baax maanaam Ousseynou Niass tey kontaante bi man bi nga xam ne man sama lépp nga mënuma wax si yow ndax su ma waxee si yow sama xol day fees maanaam Ousseynou Niass tey bis bi nga xam ne macha allah li nga ko waxee waa Ndakaaru ñëw nañu fépp foo xam ne région la dagg nga sa itte yëpp ñëw euh, nga xam ne dañ la xam si marché Ocass ngay lu toog di ñaw loo xam ne macha allah boo xoolee fii li fi sañ sa yëpp xaaj bi sa loxoo ko dagg say xale ko ñaw nga am ay emprunté yu yu am jom ba pare tamit nga ñëw xool xale bu rafet nga ne ko coppe jël teg ko sa côté essay nu yow daal kenn du yow. <laughs> non kenn man li ma la wax rek yàlla rek xam nga loolu lépp nit ñi ñoo ko def ci ñun quoi wax dëgg yàlla ñun duñ ci dara. nit ñi wanuñu leen lu tax ñu war ñëw tey pour man seen seenu mbaax moo leen moo leen moo leen moo leen may lii ñu am xolu bëgg ma am xolu tamit yaatal ma yaatal ma ma ci seen ku ma ci woo xam nga koo ci woo mu ñu fekk seen loolu dafa neex loolu doy na sëkk man ci man loolu doy na sëkk waaw di rafetlu tamit seen liggéey yéen ndax boobu léegi yéen nekk di sonn di def tout pour yëf fi rafet macha allah kenn du yow ki nafal merci beaucoup. nekk kontaan naa li nga fi teew aussi kontaan naa si ñëpp sama xarit yi bi kontaan naa aussi maa ngi remercier ñëpp képp ku ñëw ak koo xamante ni ñëw maa ngi lay remercier bu baax te xam ne bés bi moo demee nii vraiment bëggoon nañu àggali lépp mais dañ ko mujjee interrompre parce que bés bi moo demee nii yaa ma gën a xam kontaan nañ si ñëpp ñu ñëw ak ñu ñëwul ñëpp kontaan naa xam nga bisu Ousseynou Niass il faut que mu mën a demee nii ndax day naanaan te mooy loolu dafa woote ñëpp wuy si ko macha allah yow say xarit say doomu nday say mbokk ñëpp ñëw xam naa tey sa xol war na sedd guy waaw boo ñu gisee nga xam ni contentement la ñu àndal mbégte bu rëy wax fa dëgg yàlla am émotion moo tax sax mënuñu wax vraiment kontaan nañ gis nañu lépp kontaan nañ vraiment macha allah nga gën a góorgóorlu xam ni sa jëkkër dafa nekk ni koo xam ne dafa am ñëpp mm-hmm. xale bu baax bu yaru bu mën a accueillir ku mën a doon si àddina ak képp ku mën a ñëw macha allah muy kontaan na waa loolu moom xam nañ ko moo tax ñoo leen gën a kontaan vraiment bés bi nii rek la mën demee parce que ki moom bés bi moom moo mel nii vraiment Absa xam nga ni def nga say sañ sa riis na macha allah merci beaucoup sama jëkkër rek moo fi jaar merci gisee li xam ne naanaan moo xewle Ousseynou Niass démb damay wax ni bërki démb ba léegi kenn nelawul kenn amul jàmm ñu ngi waaj bis Ousseynou Niass bi muy naanaan yi ñëpp ñu fi macha allah bis bi riis na neex na sañsa yi baax na ñëpp ñëw nañ macha allah ñëpp kontaan nañu Niass 95 yàlla na sa jàmm yàgg ak képp ku la ko yéene sa sëy bi yàlla na barke nga am si njaboot bu barke si barke Seydina Mohamed kontaan nañ bu baax a baax